doo ko laal waaw consommation yi antal ma ko wax dëgg yàlla mais Wally artiste ak famille joué tout le temps day gars yi ñuy jaay eu seeg waaw d'accord naa waaye man je préfère man tam ma jël sama bopp sama bunt rek kon yow yow tey tey képp ku la engagé woon tamit tey euh, mm. fay la en même temps tamit di ko jaay tamit euh, moo xam tey noonu lay amee morning euh, ngeen war ko bokk comme doo ci bokk déedéet man am na ku nekk ci sama bunt ku fay toog mm. xaalisu billet dina ko jël teg ko na le su paree mu ne lii la Wally moom mu et comme ça. Wow. alors actuellement là, le projet 2023 qu'est-ce qu'on attend de toi. Hmm, projet 2023 yi bëri na c'est la trame de qui est dañuy kojaate <laughs> te dañuy kojaate Garde, Gars, ma sax da ngay mën dafay xaw un metti parce que

ba nga ko soxlaa pour def ak moom jiyo mm-hmm. dafa ne la woon dama liggéey. waaw daf ma jàngal àdduna xam nga ñun tamit dañuy bàyyi xel ñun suñu liggéey. Uh-huh. walli tey ban sentiment nga am tey ci lii ngay def ak Akon. ak la fa xewoon. Akon ndeysaan c'est un grand boo xamante ni saa bu ñëwee fii même bu dee benn yoon dinañ ko déggante via Mbacké ah? eh, moo tax ma ne la gis nga Sénégal dafa naqaree waxee da ngay waxee fii rek. nga wax li nga sentir ñu ñu ko. waxal li nga sentir waxal rek. Mhm. bi may wax ci wax Akon. sam mhm. papa laa njëkkee. Mhm. ci sam papa laa njëkkee. dal ci Akon. dama ne sam papa man soirée bi ma njëkk a joué daf maa loué matériel. loué ma boîte ci ne Akon bi ma ñëwee may demal nga liggéey ba ci kanam. liggéey la laaj. mais loolu métti woon na la Wally. daf ma def. loolu mais dafa la métti woon daf ma jàngal dégg ma dañ ma jàngal en étant jeune xalé bu ndaw da ngay am fugg mais actuellement fi nga toll nii da nga xamni ki mo la jàngale aduna mo la tek ci yoon. nu mo la jangalé aduna daf la jàngale aduna parce que bàyyiwu la nga yaafus lolou mu wax noonu yokk na ci man 80% de jom bo xamante jour ma guéné fofu je me suis dit écoute je vais plus jamais demander service à quiconque. Mhm. moo -hmm. motax ne metti won na la. wa non motax tax la daf ma yokk jom. Et, si je me rappelle bien, tu as même répondu que dina Dembe Yegfo yegg foo xamante sax si je me rappelle quoi. waouh mais Dina dem mhm. gis may way non non pas ah man Sénégalais <laughs> <laughs>

ñu seq liggéey wara liggéey pour réew mi hmm. naa la woo na la réew mi kat lii lañ leen war a defal lan nga ci xalaat nga wax ma sa avis ñu defaloo ko mais man ma ñëw demander artiste ndimbal moo tax damay liggéey comme dof bugguma ku ma ketal ëllëg hmm. bugguma ku ma ñaanal njekk ëllëg hmm. bugguma lu ñàkk fayda bugguma dugg fenn di fa manqué ma noonu Et c'est quoi le secret de Wally Wally, euh, il chante, il est friqué, il a, il a des possibilités. Je suis bien. je suis bien. Je suis bien. Non, moi j'adore ce garçon. Je vis bien. Je suis bien. Ouais. Je vis bien. Tu vis bien. Machallah. Mais Wally, Daniel Laté, madame, c'est business en dehors de la musique, c'est quoi Alors, euh, j'ai pas de business. Seriously, j'ai pas de business, à part mes contrats de pub, tout ça là, mais j'ai pas de business. Tu des, fois, de... des fois, il m'arrive de d'acheter quelque chose, une voiture, n'importe comment, on dit, comme tout le monde. Mais j'ai pas de business. Mais j'ai auto. Il peut m'arriver de vendre une voiture que j'en ai, que, que, que je conduisais, n'importe comment, on dit, kon ne war ngaa jege rek indi ma benn caay bi man. waaw mais mooy loolu. def ma benn business. kan nga may dit ben caay bi. ma jaay la benn caabi <laughs> oto yi ma am yow mënuloo ko jëndee Sidath. Eh, ay waay waay non non nañ ko nan nan léegi nag nañ ci xëpp kaane balaa émission bi jeex. waaw waaw bu ci xëpp kaane eh, jaaga damay woo jaaga oh, kon. ma woo jaaga. bi ma yow mënuloo ko jënd kon ma woo mais kon ma woo jaaga. mais mënuloo ko jënd Sidath ñaar lay jar. non mënuloo ko jënd. non Waly bàyyi ngay def. J'ai <laughs> conduit une Rolls-Royce Kulunan, mon 100 millions 200 millions ah, non non non non non c'est pas cher alors non non non non non elle ben level non non non non non 500 millions c'est pas du jeu mon gars ça coûte combien c'est pas du jeu c'est du lourd frère <laughs> c'est du lourd alors hein c'est du lourd frère kon Rolls bi quand on non j'ai connu RR RR c'est du lourd mon gars c'est du lourd c'est du lourd mon gars mais waaye da nga bëgg nga bëgg matériel yi. waaye yow man si Sidaat man léegi. ku est ce que suba doo xëy sa dawal avion waaye ñu waxtaan tuuti rek yéen nag gis ngeen si yéen gis ngeen man daal man daal damay waaru bu bu bu américain bi ñëwee. yor oto bu baax ñu ne ndeysaan xool ko oto bi star la. temps yi ci gannaaw waa xaaral rek xaaral rek. fan fan bu bu bi defee na ne jaadu na. léegi ñun ñi gëm ya ñun ñi nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni gëm nii dañu wara am dara par exemple euh, un musulman wala chrétien wala ko mën doon dëkk Sénégal Afrique nga dëkk rek waro am lu baax ay non lii métti na mais wali yow yow yow mu neex ci weer bi mën nañ la gis nga dawal ay 5 wala 10 auto yu bokkul ma ko jagleel dama koy dawal bala ma dé suma déwé deewee damay perte yow semaine yele passé rek daje ne ci conférence nga yor lan li yor sama xaalis bi du maa ko liggéey Range Rover bo xamante comme camion du maa ko moom du maa ko liggéey hein 2023. ça. oui pour wan la hmm. pour wan la Tu d'accord. je travaille comme un fou. Hmm. man deew ma restaurant. suis hmm. ma boîte de nuit à part may tëgg. deew ma fenn. sama gars yi suis dem football du Je ah, Oui sama passion la. Oui. lu mu jar dina ko jënd dawal parce que sama la mom suma que damay perte hein. kon est-ce que du kon. Euh, euh, man du perte fi perte <laughs> <laughs> non do perte fi perte <laughs> non damay damay neexal la damay dund vais neex la femme mais dafa am lu sentir tamit ci yow. Ah. dund ji. mais lu wax ngeen borom def. Mhm. def jox mhm. jox keneen xañ yuusu jox bàyyi yuusu xañ yaayam waxin la quoi pour ñu comprendre je jox diw jox diw wala ñu jox ñu jox la yow xañ waali mhm. léegi yow si laat ñu jox la yow xañ waali yow da ngaa gën waali déedéet léegi yow yàlla mi tànn yow jox la boo ci dimbalee ni nga war a dimbali doo ci sant ko waa téye ko ba xam di nga ko jëriñoo. toog naag jaaga. téye ko euh, ba xam yow mës nga gis ku ñu sóoraale xaalis. man man xam naa ne am fit nga.